Salut les amis de eSport TV et de Babo Show. Merci encore Gaët, la confiance renouvelée. Merci de des likes, merci de des abonnés, merci également des bails commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations inbox sénégalais. Fait folle maintenant 14 régions du Sénégal. Roukhoukhadi, Gorgokhadi. Nous l'avons dit à Dieu, nous sommes également à l'hôpital et à l'hôpital de février. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire aussi erreur judiciaire. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes de faire Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. avance ensemble dans la magie de Babo Show et l'eSport. TV. L'actualité en contenu gay. Actuellement, nous faisons une waxtaane ki am donc Kylian Mbappé et ce rêve qui se réalise officiellement joueur du Real Madrid 15 ans après un certain Cristiano Ronaldo les faits euh, marquants qui li nga Mbappé ñu faisons ci Chelsea génne officiellement c'est le maillot bi sol saison bi franchement maillot beau nice là, beau rafet là, sincèrement le maillot des Blues de Chelsea bu Nicolas Jackson bien évidemment pendant ce temps aussi à Juventus de Turin Adidas génne c'est maillot moo nekk ni maillot bi donc le waa Juve la vieille dame di solti euh, saison bi ñëw ngeen gis Bremer ak ñom Vlahovic daal di koy bi ngeen euh, gis bien évidemment donc saison bi Italie aussi comme chaque année dina nek saison bu indécise hein, parce que comme mon wax né élevé moy carrément pour Lopez va quitter probablement Marseille ndax euh, amna accord hein, donc ak qui nga donc Como bi nga xamné qui dit di actuellement Cheikh Fabregas moo fa nekk di diriger li nga xam donc opération yeeg yooyu noonu Kingsley Coman aussi Fenerbahçe de quoi faire proposition mais moom euh, l'attaquant français euh, de Bayern Munich même bu fekkee Bayern da koy jaay moom daal euh, nee na demul fi nga xam ne mooy donc rejeté donc offre Bobo Nono. bien évidemment ki nga aussi nag mooy donc kii Matisse Mathis Delirte également moom nag fi mu ne hein, donc situation ak Manchester am nañu accord de principe mais négociation avant avancé Même même bu fekkee ne Bayern pare nañ pour daal di koy yaay jënd kii mooy Jonathan Tah mais comme que dara leeragul fi ni Bayern mënul jënd mom aussi mu a fen fenn Jadon Sancho mujjee na jubóo wax na len ko ak ki nga donc euh, Eric Ten Hag mi nga xamné nak def na déclaration do wax ni dal euh, mbiri euh, yemb na waye ba légui Manchester nee buñu gisé ñu ko bëgg jënd dañ koy jaay sinon aussi mu toog fa jouer parce que Ten Hag nee dina bokk joueur yoo xam day compter ci mu ci saison bi di ñëw Emerson également ni nim leen ko waxé ba légui mom dossier avancé wul ndax dafa bloqué woon ah donc Milan le bëgg dem mais problème mooy donc ñii di waa Tottenham 50 millions lay laaj Milan nak nee fi ni gars yi mënul loolu donc ñu ngi négocier pour xool prix bu euh, jaadu euh, ki nak également euh, nga xam moy Nicolas Füllkrug gannaaw bi nga xamé né Milan confirmé na ak ki nga xam moy donc Morata téwul nak waxtaan nañ ak entourage bi nga xam mooy Füllkrug nee waxtaan bi waxtaan bu positif la mais nak dara yembagul bien évidemment ki nga xam ne nag donc waji man waji dal daal ma jaar Mikodze Mikodze dem na ba ñé accord am na lépp du côté de l'AS Monaco finalement nak OL lañ koy wax fi Lyon dal lay wax lu mu ji accord parce que daal ma ngoog mbir daal ak agent je sais pas comment ça se passe mais léegi daal li ñuy wax rek bu mbir yi confirmé ñu wax leen waxu Mikodze pendant ce temps al khatia grand bi ñu jaayee Mbaye Diagne Mbaye Diagne sax boo décidé dem yoonam fii nii nag am ngañ accord de principe ak ki nga xam ne donc Pierre-Emerick Aubameyang Marseille nak mi ngi xool proposition pour d'aller officialiser nga le départ de Aubameyang vers bien évidemment Alxatia ki nga xam aussi nag mooy Nico Williams aussi dossier mi avancé bu baax a baax avec le fc Barcelone bi nga xam ne nag bëgg nañ finaliser mbir

plein, mais plein, plein à craquer pour aujourd'hui la présentation de l'enfant de Bondi Bingham Il a rêvé jouer donc du côté du Real Madrid. Warnoko, hein, il a rêvé jouer pour Madrid, mais également Taïdi le nek donc content de l'album qui a appelé Harmon Pesartem Madari, Joy, Momignou, puis a c'est le digne successeur de Cristiano Ronaldo, mais également de Karim Benzegol. Benzema gis ngeen ko mu daal di emblème Real Madrid lors de sa présentation comme l'avait fait un certain CR7 booy seet même style de présentation Mbappé qui reproduit en quelque sorte le la présentation de kingham Cristiano Ronaldo mais également il y avait les bien évidemment la légende vivante du Real Madrid de la Ligue des Champions en tant que joueur de la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur Zinedine Zidane le français le plus aimé de l'histoire du Real Madrid. Vous avez vu également la photo aussi de Cristiano Ronaldo. Il y a 15 ans ci hein, de Cristiano Ronaldo di def photo hein, du genre à quoi Real Madrid bien évidemment et même plus pendant ce temps également les bonnes informations moo information rendez-vous tout de suite sur Babojo pour parler du cas Lucie. C'est fédération bi li fa xew retournement de situation Amna, les plus ñu fas yéene ko leer ak Vous abonné la du gars